salari jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ab sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari Bébé Diène moo fi bëreeg Fourrière daan ko Bébé Diène moo fi moo Ndiaye ndeysaan daan ko par avertissement gannaaw ba mu toogee lu yàgg bërewul jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Baye Mandione laayeen bi ndeysaan borom caaro yi am na lu xew ci baaba booy kayre am na lu ñuy wax moom pour mu génnee ko génnee na ko ca mbuus ba dugalaat na ko fa teg na ko lu arbitre di wax say juge pare nañu Bébé Diène tibb suuf Baye Mandione nee na pare na arbitre ba sifflé na Baye demee wet Bébé Diène la moom aca buur ñëw na Bébé Diène ñooxu na Baye Mandione combat rapproché la indi ndeysaan Baye Mandione Bébé Diène ñoo ngay leewtoo ñoom ñaar Baye Mandione Bébé Diène ñoo ngay leew baaraam Baye Mandione faxas ko mu daal di bàyyiwaat cey ko nag Medina bi tey jàkkaarloog Baye Mandione borom parcelle borom caaroy astafirullah demee na wet nangu wut a taxaw Bébé Diène a ngi déplacé Baye Mandione Bébé Diène a ngi déplacé Baye Mandione taxaw nañu loxo yaa ngi laale Bébé Diène Baye Mandione damantey baaraam bàyyante Bébé Diène méb na waaye demul Baye Mandione seere na lamba taake ya Bébé ay bosam yëngal boppo ñoom ñaar ña ngay leew Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène dagg waat ci digg géew bi Baye Mandione yaakamtiwul dara dafa mel ni ndeysaan ñëwaat nañ ba ci digg géew ba ràcc tànk ya leweto damantey baaraam Bébé Diène Baye Mandione ña ngay léew kurpeñ jógagul cong amagul round d'observation la ñu ñoom ñaar ña ngay léewtoo Bébé Diène Baye ñoom ñëpp taxaw nañu dagg léewtoo ba ku ci nekk di seere cee lamba taake ay waay mbaa du dóor mu daanu mbaa dóor mu nelaw Bébé Diène ràcc na tànk ya Baye Mandione ndeysaan cey bi combat lañ wax ndeysaan ginnaaw la féetee fi ne nii les réalités ndeysaan mooy li xew ci digg géew bi réalité combat bi mooy li xew ci digg géew bi la nga waxoon ci ginnaaw ak la nga foogoon lépp amatul sens ndeysaan arbitre bi coupé na combat leen kaay dégg nga loolu ndeysaan c'est le technicien qui parle scénario moo gàkku doo nga yaakaar ko buur Bébé Diène wàcc na day dem cokkaas na ko daa mu feyu ndeysaan moom Bébé Diène déclenché na les hostilités Baye ne tekki Bébé Diène ci garde gi di ko xaar pour mu ñëw Baye Mandione réagirul Bébé Diène cookaasaat na Baye Mandione rayaat Bébé Diène daw na jël Baye Mandione ko Bébé Diène jàpp na Baye Mandione attention Bébé Diène jàpp na Baye Mandione jàpp na a ngi bëreeg Baye Mandione ko ndombo kal na ko Bébé Diène Baye Mandione génn na ca Bébé Diène a ngay bëre ca na ko mu bañ mu daw war ko ndombo ko Bébé Diène daan